mbokku site internet Adouna Buzz TV dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar nag kii di nga xa kii di Ousseynou Ly nekk coordinateur Pastef bu Médina nekk membre di cabinet ki nga xamante ne moom mooy njëtal opposition bi di Ousmane Sonko moom nag ak jàngat bu yaatu nag la daal di defee ginnaaw kàddu yi nga xamante ne procureur daal di na koy yëkkati moom nag la mu daal di xamle mooy fukki nit ak ñeent ñoo ñàkkoon seen bakkan ni ki mars 2021 te boobu ba léegi benn enquête wane wuñ ko ci ginnaaw gi seen bakkan ci weeru juin 2022 ba tey enquête fouras la teen ni ko toppaat nag mu am benn nit bu wàññeeku ni ki mars 2023 bii nii foofu ca diwaan bu Bignona te ba tey ak patt pataara nag lañ fa daal di nemmeeku beneen ba lu mu daal di xam ne rek mooy fukki rapport ak juróom-ñeent yu OFNAC yi ba tey jii kenn ubbiwul ci ak enquête ñeent fukk ak juróomi milliards yi nga xamante ne ñu ngi koy wax ci affaire armement mu mel ni moomu leen mbir ba tey rek gouvernement bu Macky Sall ak moom xam le waan nag mooy rapport scandale bi nga xamante ne nag am na rapport scandale bi nga xamante ne nag am na vingt neuf milliards yoo xamante ne ba tey jii nag kenn xamul ci benn leneen maanaam daal bu product ba ba léegi amul benn enquête boo xamante ne def nañ ko ca beneen ba la mu xamle nag mooy plainte Pastef bi nga xamante ne defoon nañ ko ginnaaw bi ñu tojatee fi nga xamante ne moom mooy ca siège ba ba naga ni kenn deful ca dara mu ne juróom-ñaari plainte yi nga xamante ne Ousmane Sonko nag. déposé woon nañ ko ba tey jëmale ko ci président jëmale ko ci boobu les procureur indi wuñ ci tey ba tey benn benn leeral beneen ba ca toppaat nag nekk ab plainte boo xamante ne Dame Mbodj defoon na ko waaye ba tey jii nag gisuñ benn leeral boo xamante ne procureur daal dina koy def mu mel ni rek kii nga xamante ne nag moom mooy njiital réew mi Macky Sall benn objectif dong la am nag mooy pour baare ki nga xamante ne mooy njiital opposition bi di Ousmane Sonko ngiir mu dem ca yooyu les élection waaye nag bu ko leereere rek loolu du am tey du am ëllëg rek mu xam ne lépp dëgg la sukkandiku ci kàddu yi ki nga xamante ne moom mooy Ousseynou Ly rek moom nag la mu daal di ñaawluwaat rek mooy nervi yi nga xamante ne dugaloon nañ leen ni ki le 16 mars bi nag ca boobu le procès bi doxoon ci Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang te ba léegi indi wuñ ci nag benn leeral beneen bi ci topp nag mooy crime bi nga xamante ne Ahmed Suzanne Camara nag defoon nañ ko ba léegi procureur amul lenn loo xamante kumba euh, amul ndey la te beneen bi ci toppaat rek mooy ginnaaw bi nga xamante ne amoon na ab benn nit ku ñàkk bakkanam ci côté benn bokk yaakaar nag la ñu commencé rek di ubbi ay enquête ak wax li nga xamante ne moom mooy moom moo jëm ci boobule ay ay ay placé sous contrôle judiciaire yu dul jeex mu mel ni rek kii di procureur dara la république nag bu ñu sukkandikoo ci analyse bi nga xamante ne kii di Ousseynou li daal dina koy def rek moom daal Macky Sall dong la fi nekkal ak njabootam waaye nag justice bu Sénégal dafa war a tëddee njaaxal nay te bañ a indi benn farfar li nga xamante ne moom mooy euh, li njiital li coordonnateur Pastef Médina di membre cabinet ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko xamle rek mooy procureur général nag moom la mu daal di xamle woon rek mooy magistra yi seen droit ak seen àq nag mooy basé wu ci loi mu mel ni rek boobule loi moom ay waxul neen la kese waaye boo xamante ne àndut ak benn gëm-gëm loi boo xamante ne nekkul benn yoon lu ñu respecté ak ak yelleefu doomu aadama mu mel ni rek loi bi daal tëddeewul njaaxanaay comme ni mu ko waxee rek avantage ki nga xamante ne moom mooy njiital réew mi di Macky Sall loolu rek lay xool mu nekk jamono ji nag ak handicap boo xamante ne mu ngi sooxee suñu réew mi ba tax na nag ki nga xamante ne moom mooy Ousseynou Ly rek ma ngay dénoncé bu baax kumba am ndey ak kumba amul ndey gi nga xamante ne koy dund ci biir ocurrir realmente.